jàngeen jëf ci ànd beeg télévision Futurs Médias mbokk yi teewlu xibaaru digg bëccëg bi ponk ca gën a fës baccalauréat bi di ñëw boo moyul ndax jàngalekat yi nga xamante ni nii ñoom ñoo ko war kon yore jëm ci wàllu correction baak lu ni mel nee nañ nag bu ñu ca yeggee daañu bank seen loxo muy jàngalekat yooyee fare ci SAES ñi ngi wéy di mere nguurug Sénégal tey ji nag seq nañu waxtaan ak recteur bu université bu Ndakaaru ak directeur bu office du baccalauréat waaye dara judduwul ca waxtaan woowee ci jamono jooje ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy tàggat jàngalekat ya ca daara jooje ñu duppee FASTEF ñoom it ña nga yëglu ndax nee nañ lu toll ci junni ak juróom-ñeent eh, téeméer ci ay jàngalekat seen ëllëg eh, boo mayul eh, tamit dana soxee nguuru ko Sénégal lañ ci joxeñ baaramu tuuma ñoom formateur yooyee bootu ci SAES e ñoom it nee nañ résultat yi tukkee ci examen yi dañu koy téye duñu ko joxe benn yoon lu aju nag ci soxna yi nga xamante ni dañuy wan lor ndax ñooñee caabi daf leen war a féete gannaaw laaj bu samp la comité sénégalais bi taxaw ngir xeex ak ak yelleefu doomu aadama nee na nag donte ay daan dana tegu ci seen ndodd war nañ ko xool uh, ci yeneen anam solo si mooy fexe ba soxna yooyu nekk ci anam yu mucc ayib wàllu napp gi ca Rufisque foofee nag uh, jëwriñ ji sàkku na ci nappkat yi ñu daal di sàmmonteeg code bu yees bi waaye tamit nañuy fexe uh, ba solub gilet yi ñu daal di koy sàmm bu baax a baax jëwriñ ji nekkoon foofee ca Rufisque ca Gorée itam gannaaw ñaxtu bi nga xamante ne askan wi ñi ngi ko doon def ci lu yombal seen dem ak seen dikk jëruñ ji eh, di Omar Gueye dalal na xel ya foofee ca Gorée ndax nee am na ñaari bateau yoo xamante nii eh, dana daal di tàmbali daw diggante Dakar ak eh, Gorée loolee nag ba war fekk ji kon bateau ba nga xamante ne ma nga fa woon ba noppi muy maam Kumba Lamb ca Saint-Louis muy acteur politique yi nappkat yi société civile ba ci forum civil ñoom nag li ñuy sàkku rek mooy gaz ak pétrole ba ñu fay lam lu mu ca mën doon bis bu ñu ko exploité na doon luy jëriñ askan ñetti fan ci la yem bokk lu aju nag ci la askan wi soxla ci marché bi ndax daañu ko jotam déet wàllu qualité bi it naka noonu gan gi Omar Diallo la moom mooy njiital service régional euh, bu euh, ministère du commerce maa ngi leen nuyu Omar Diallo. maa ngi leen di fay. voilà ci kanam tuuti daanu faram-fàcce loole lii nag daañu ci tekk xët yu njëkk yu yéenikaay yi ak Mamadou Mouhamed Ndiaye la noonu jaa ngeen jëf mbokk yi nes tuut ñu yaatal ko. jàngeen jëf ci ànd beeg télévision Future Média ni ñu ko waxee ci ponk yi lu waaju nag ci SAES e muy syndicat boobee ëmb jàngalekat yi fare ci daara yi kaw yi soobu nañu ci ab démb ba tey grève ñaari fan la ñoom nag nguurug Sénégal lanu mere ñoom waa SAES e tey nag sekk nañu waxtaan sax ak recteur bu université bu Ndakaaru ak directeur bu office du bac waaye waxtaan wa dara juddu ca ba tax na ñoom jàngalekat yooye nag ne examen bi di ñëw di baccalauréat ba nag nag daan seen loxo mer ba futt la ñu def ñu teewlu ci Ibrahima Dali Diouf ci micro Fatou Conté. mais état Sénégal moo deful li mu waxoon te li mu waxoon mooy comme da ngeen ñuy teggil benn coono par rapport ak jàngalekat yi nekk ci biir réew mi te mënuñ ñëw dakaar ngir formé wu boo leen liggéeyee ba pare dinañ leen fay ñoom pare nañu li ñu waroon def lépp. état bi chaque année lim leen doon jox as tuut daanaka daka daan wàññi ba 2017 bi ñu leen di wax ni amagul dërëm boo xamante ni génne nañ ko te nag ñun li ñu jaaxal mooy ñoom état du Sénégal xam nañ ni dañu ameel xaalis Pastef professeur yi nekk fii di jàngal ñi nekk ci biir réew mi état Sénégal ministère enseignement supérieur xam nañ ne ameel nañ leen xaalis au lieu ñu jël xaalis boobu dugal ko ci seen budget 2017 defuñu ko de ñu ne déedéet dañuy xaar li ñu tuddee loi de finances rectificative pour mën ko ci dugal kooku dafa am lu muy niru loolu moo waral nag ñun dañuy yëglu ëllëg ak ci biir problème bu amee parce que tamit ki nekk ci àll ba xamul li fi xew. moom dafa yaakaar ni ñun ñoo bëggul génne résultat déedéet ñun bëgg nañ génne résultat mais résultat boo koy génne jury day toog jury ñu koy composé ñooñu da nga leen amee xaalis depuis 2013 te 2013 ba léegi déggoo leen ñu wax ci mais nag lu ëpp tuuru. ñeneen ñu fare ci SAES euh, e muy nag ñee tàggat euh, jàngalekat ya ca daara jooje ñu duppi FASTEF euh, ñoom it nee nañ lu aju nag ci résultat yi tukkee ci examen yooyu nga xamante ni ña ngi ko doon jiite nee nañ dañu koy téye ñoom it ndax nguur gi lañu mere la mu warloo woon ak ñoom sàmm ci dara loolee nag tax na ba ñu naam ñoom it daal di xëy rek yëglu dinañ ci delsiwaat laaj bi samp nag mooy ndax soxna yi nga xamante ne danoo wan lor caabi daf leen war a féete gannaaw waaw am déet lu mu ci mën a doon euh, comité bi nga xamante ni moom mooy xeex àq ak yelleefu doomu aadama euh, fii ci Sénégal moom nag ne bu dee sax ay daan euh, dafay tegu ci kaw soxna yooyu li gën rek mooy ñu xool daal ci yan anam lañu koy defee maanaam pen yooyu su ko defee soxna yi mën a nekk nag ci anam yu mucc ayib am naa lël boo xamante ne nii xëyoon nañ ko amal ni ki tey ji di après dund ci biir kaso dafa métti rawatina boo nekkee ab soxna jigéen ñi caabi pété ginnaaw booy soo xat gi kaso yu xat bari na ay jafe-jafe yu ñuy dund ñenn ñi dañuy wann lor ñenn ñi yor ay doom yu ndaw ci biir prison yi ci ay conditions yu métti. am ay problème yoo xam ne nii dafa di jigéen ñi rek ñoo koy dund ci prison yi ndax seen. état di jigéen maanaam ni ñu nekk jigéen loolu dañ ci nemmeeku ay jafe-jafe yu metti ci jigéen ñi nga xam ne dañu wan na lor nekk ci kaso bi di dund seen wan na boobu ak milieu carcéral di jigéen ñi nga xam ne dañuy nàmpal xale également te nekk fa mais di jigéen ñi nga xam ne aussi dañu yore xale boo xam ne ni xëy na amagul ñetti at pour mun a ñu mun ko libérer loolu yëpp daf ñu soxaloon ba bi ñu ci waxtaanee def nañ ci ay waxtaan génn ci ay résultats yoo xam ne nii dafay dafay génne rek dafay wax rek ne Euh, ay jafe-jafe moo fa nekk yoo xam ne nii tey euh, jigéen googu nga xam ne dafa wan na lor euh, dundam ci biir kaso bi nan lay defee visite prénatale am yi est-ce que dinañu sàmmoonteeg àq bi mu am pour war a mën a dem gis médecin bu fekkee ne que amul spécialiste nemmeeku nañ ne également prison yooyu amul ay spécialiste souvent da ngay soxla pour génn dem ci centre hospitalier yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bëpp ñi nga xam ne également bu ñu waree accoucher ci yan condition la ñuy accoucher ñu gis ne ay jafe am na foofu également parce que amul un plateau technique approprié pour jël en charge ñooñu nga xam ne ñoo nekk ci prison yi. ordre des avocats du Sénégal jàpp ne tëj jigéenu biir ci kaso dafa waroo ak convention yu bari yu Sénégal signé ci wàllu droit de l'homme dolli si avocats yi gis ne loolu du respecté ak ak yelleef fi xale bi juddoo ci biir prison bi. pour gën a yombal loolu mën nañoo jukki ci jigéen ñooñu ñi nga xam ne dañu ëmb. parce que bu ñu tëjee jigéen bu ëmb ñu yóbbu ko kaso dañooy tëjaale doomam or doom jooju deful dara te doom jooju dafa am ay àq ak ay yelleef yoo xam ne sunu loi yëpp daf ko ko jox ma kon nañu seet pour jigéen ñooñu au lieu ñu di leen yóbbu di leen denc nañ leen wutal pexe moo xam ne di seen diggante ak yoon ak bi nga xam ne amel nañ ko yoon wi parce que dañu yoon dafa dal seen kaw am na li ñuy wax ay peine alternative comité sénégalais des droits de l'homme mbébétam mooy fexe ba conclusion yi tukkee ci biir atelier de plaidoyer ñu yeggee ko décideurs yi ngir gën a ñoŋal nekkinu jigéen ñi ci biir prison yi ñu di ko jaajëfal bu baax di sa PRERA napp gi nag ni ñuy fexe ba mu gën a ñoŋ ca diwaanu Rufisque loole nag ña nga cay xalaat waaye ci kaw loolu euh, jëwriñ ji ñu dénk wàllu napp gi prier na euh, maanaam acteurs yi ñu def seen kéemtalaay kàttan ba sàmmonteeg ñaari mbir bokk na nag ci fexe ba jëfee dogal yi tukkee ci code bu yees bi waaye tamit lu aju ci solub gilet bi nañu ko jox gëdd bu baax a baax Ousseynou Thiam Bira Diagne ngir gën a mën a nag yore li nga xam ne lii moom mooy infrastructure yi jëm ci wàllu napp gi nag ñii di acteurs yi daje ci fii ci Tëngéej ci centre national de formation ngir ñu gën leen mën a tàggat ministre bi nag profité ca ndaje ma dellusi ci li nga xam ne lii nag war nañ koo def ngir appliquer lii di code de la pêche bu bees bi. nag boroom xam-xam yi dañu wax ni plus ngay lekk jën plus sa wér-gu-yaram di gën moo tax y a demande en poisson te suñu moytuwul ni géej gi. génération yu ñëw boo mootul bu ñëwee duñ fekk lu bare moo tax ñu jël ay mesures sévères mesures yu njëkk yi mooy jën yu ndaw yi am kenn amatul droit nap ko boo jëlee yaabo yi amoo droit napp ko bu dee taay bi yées na 18 centimètres bëgg bala ngaa napp jën bi nga may ko mu nen xam ne ay bateau yu mag dañuy ñëw dugg suñuy géej di napp sans aucune autorisation sans licence jàppee benn gaal juróomi téeméeri million ngay fay te fois ñu dem ak yow sax ba un milliard nga te même boo ko fayee ñu bàyyi la nga dem bu buñ la jàppaatee moom ñàkk nga sa gaal Sénégal moom gaal bi jëm ci lii di solug gilet de sauvetage yi ministre bi nag annoncé ci ay matukaay yu mat sëkk. gilet yi dañ ko rendre obligatoire ci code bi te xam ngeen ni gilet yi at mu jot ñu commandé ci ñaar fukki junni gilet président wax ñu wàññi njëg gi ba deux mille cinq cent au lieu de cinq mille. encore une fois di lancer un appel pour que yëpp bala ngaa dem géej nga sol sa gilet. képp kuy tukki ci gaal tamit bala ngaa dem nga sol sa gilet loolu dinañ jël ay mesures fortes jox nañ instruction service yëpp pour ñu mobiliser wu. bu duggati ci gaal bu ñu la jàppee te solo gilet di nga infraction la di nga fay amende amende yu bare bare. ci kàddu yu ministre bi nag jox nañ service ministère de la pêche yëpp ay instruction ndax dogal yooyu ñu jël nag ñu mën koo appliquer. ñu koy jaajëfal Ousseynou Thiam déggoon nañu leen nag fan yi ñu yëngu-yëngal euh, ca gore ba ñu euh, dégg leen loole nag euh, mu mel ni kon tey saafara mën naa am muy ñooñee nag di yeewoo gore ndax dem baak dikk ba la ñu bëgg ñu jàppale leen ci bu baax a baax jëwriñ ji dénk wàllu kon géej gi économie maritime àdduna ci wàllu woowee nee na nag ñaari bato léegi tey nag dana disponible foofee ca gore bato yooyu nag war a fekk ji kon dafa nekkoon ba tey muy maam Kumba Lamb loole nag mu mel ni xalu mën nañ caa dalal bu baax a baax ñu teew lu ci jëwriñ ñu dénk wàllu kon napp gi Omar Gueye euh, ci micro Seynou Thiam. mu tombé nag jamono boo xam ni affluence dafa am affluence de touriste xam ngeen ni Sénégal fi mu ne nii tourisme bi macha allah mi nga dox bu baax affluence aussi ay élèves yuy dem excursion à ñaar yooyu boo ko booleeg waa Gorée benn chaloupe bi du doy moo tax bi ñu yëgee mbir mi exceptionnellement ma autorisé kumba làmb mu def lieson bi donc tey jii boo demee digg depuis démb wala bërki démb sax béer mi ngi def liaison bi mais Kumba Lamb aussi mi ngi def liaison bi donc pression bi wàññeeku na bu baax. Ah, gannaaw Gorée ñu yegg ba Ndar Géej gaz ba ak pétrole ba ñoo ngi koy lam-lamee booba ba tey feeñ na fa waaye tey acteurs politique yi nappkat ya waa société civile ba ci forum civil nee nañ lu mu ci mën a doon nguur gi nag na fexe rek ba pétrole boobee ak gaz ba askanu Saint-Louis njëkk ca jariñu Ousseynou Thiam Ousseynou Diop lañ ci àndal ak Abib Seck. débat bi jëm ci wàllu kër lii di pétrole bi ak gaz bi rawatina li nga xamante ni dañ ko gis ci diwaan Ndar géej ba léegi askan wi ñu ngi ciy yëy yàbbi acteur politique forum civil ñii di nappkat yi ku nekk sa laaj yaa ngi koy bay bu fekkee ni sax ci nga xamante ni dañu yëngu ci wàllu politique rawatina wàllu ndaw ñi lay seen yitte mooy loolee ñu war a génne ci diwaanu Ndar mu jariñ xale yi bu fekkee ni gañe nga lu toll noonu muy ay milliards milliards xanaa lu mu bon bon nag ngir yàlla daa ñëw daal ni main d'œuvre bi nga xam ne ñoo fi nekk xale yi fi nekk daan leen forme ñu dem bokk ci exploitation pétrole beeg gaz bi. ñoom ndaw ñi ci seen xalaat institut ñu war a def ca Ndakaaru fi ne ci dëkk bile lañ ko war a amalee. école de formation bi nga xam ne si dégg naa président wax ko muy école des métiers du pétrole ñu koy samp sa jam ñaajo mais xoolal à deux cent et l' exploitation bu war a def si Saliou ça dogal bi ñu yéeg ci yàb bi amal ay ndaje ngir yee ci askan wi lu ñu bëgg bokk na ci lépp leer. dootul politique ndax loolu économie la li jëm ci alalu réew mi kon buñ ko defee euh, daral xelu nit ñi. Euh, bàyyi xel ne ñooñu ñëw di fi di di di di toppatoo affaire pétrole bi ñoo borom alal lañu li leen gën a intéressé mooy euh, ñu am seen xaalis dem. donc bu amee yàqu-yàqu ci ñun lay des. gaz ak pétrole bokk na ci lay soqali réew ngir koom-koomam mu gën ko yëkkati bu ñu sukkandikoo ci borom xam-xam bi di Abdou Guèye di environnementaliste waaye tamit xam-xamam ci jëm ci wàllu lii di hydrocarbure nee na am na ay conséquences yoo xamante ni mën na ci am. en 2010 l'exemple le plus patent c'était le cas de Deepwater Horizon. dirigé par British Petroleum foofu tam am na accident bi ñu assisté bi nga xamante ni bu ñu defee évaluation gis nañ ni na ci cinq de barils baril bu nekk def na. pratiquement cent cinquante huit cent cinquante neuf litres donc war nañu mën a xool tam nan la ñuy encadrer pratique boobu parce que tam économie la bi nga xamante ne mën na ko jural pays bi. képp ku ni développement da wax pétrole ku ni développement da ngay wax argent mais également ku ni développement da nga koy wax ci environnement bi nga xamante ne environnement bu sain pétrole bi jamono jëlee moo lëmbi mi kenn ku ne yaa nga yëy yàb jëm ci lu ni mel ñoom environnementaliste yi nag ñu ngay dànkaafu nguur gi ngir ñu mën a saytu bu baax lay génnee ci suñu wax yi. ñu di ko jaajëfal bu baax Ousseynou euh, Diop euh, weeru koor gi euh, koor gi kon teeru na ba noppi ndax ñetti fan kepp moo des ci ñu um koor marché bi nu mu tëddee ndax li askan wi soxla daañu ko fa fekk am déet dem nañ nemmeeku ji marché Tilène foofe nag lañu fa seetlu mooy commerçant tàmbali nañu xàtti di def seenub commande bokk na nag ci wàllug meew suukar tàndarma daanaka daal mën nañ jàpp ni stock ba doy na foofe ca marché Tilène loolee rek ngir askan wi bu ñu ñëwee lu ñu soxla yépp ñu mën ko am dañ ci ak Mame Birame Diouf. kër gi teel a jóg di ndugg produit yi nga xam dina ko soxla ci biir weeru koor gi ngir bañ ci am jafe-jafe jaaykat bi moom lam doon jënd ci ay marchandises yokk na ko bu baax. ñu commande suukar meew kafe tandarum beurre mayonnaise. fekkoon nga doon commandé ñaar jamono ji nu mu demee. waaw bi pour mu bañ a manqué comme par exemple suukar bu fekkee cinquante nga doon jël mën ngaa jël cent gros. beneen boutique jaaykat bi di Cheikh Ndiaye moom la ko mettre rek mooy. fa mu toll nii suukar si mu gis ni daal euh, tàmbali naa manqué. te góor si la manqué dégg nañu ministre bi ne am na ay stock mais stock boo dem. amu ko. lan moo ko waral nga foog. ah waaw loolu nag mooy jaaxal war nañ gaaw di jënd rek loolu mooy jaaxal ndax koor gi ñëw te war nañu am suukar bu doy. nga jamono ji am nga suukar. waaw waa instant yii dafa wàññeeku turam dama a dolli nag pour mu bañ a manqué quoi. mais gisagoo ñu naan la amul ak yooyu dafa manqué. waaw am na tuuti instant am na insane am na waa. ngir moytu génne koppar bu bari bu fekkee ni njëgi dafa yokk wala sax ñàkk ci yooyu am ci weeru koor gi soxna si moom it di xam ne ni dinañ dugg ci teel. waaw commencé naa def bu yaa bu baax baax baax koor gi moom dañu changé lekk yi bu baax a baax a baax dañu daan lekk par bëccëg duñ ko lekk guddi waaw susuma guddi gi xëdd bi dañuy changé yu bëri suukar si ma ko jëfandikoo lu bëri moom waaw bisaab yëpp ci suukar si la lekk mën na bañ bañ a bëri moom mën na a bëri baax si wér moom. bu yokkee ci kaw su ñëwee ba ci biir matin foog mu yokk. mu des ay fan ñu door koor gi jaaykat yi ci marché yi fu mu ni nii yokk seen i marchandises lépp ngir consommateurs yi la ñuy soxla ñu mun kaa am te duñ ci am jafe-jafe. ñu di ko jaajëfal bu baax maam Biram Diouf sunu gan waxoon nañ ko ci ndoxteel li Oumar Diallo Lo chef de service régional bu ministère bi ñu dénk wàllu njënd mi ak njaay mi Oumar Diallo dellu baax a baax. Euh, ni ñu ko waxee euh, tey ji nag solo si mooy euh, koor bi nga xamante ni nag ci la dugg ndax li ci des wax naa ko sànq ñetti fan la marché bi nag gis nañ léegi ak reportage bi ca marché mm-hmm. du duñu ne nag yenn xëy na lu soxla lu askan wi soxla ci yenn yi manqué na lu ci mel ni suukar lu ci mel ni meew ak yooyu waaye dañ ko stocké. mu mel ni kon commerçant yi daal dañ ko naj fenn waaye ndax askan wi seen xel mën naa dal est-ce que lu ñu soxla dinañ ko am bu boobaa. waaw maa leen di gërëm leen sant ci opportunité bi ngeen ñu may pour ñu mën a waxtaan ak euh, sénégalais yi consommateurs yi de manière générale euh, comme ni nga ko waxee ñi ngi jëm ci période boo xam ne ni période de grande consommation lay doon parce que képp ku wax waxu koor xam ne ni sénégalais dont euh, koor période xiifal la mais lekk bi moo gën a am solo te moo ci ëpp alors approvisionnement bi euh, élément bi jàll wane na ko ni ko nit ñi euh, commerçant yi jël nañ seen disposition pour mhm. approvisionner correctement seen clients yi noonu ko commerçant yi defee noonu la ko état bi defee aussi à travers le ministère du commerce parce que xam nañ ni euh, fin mais dañu waroon am soxla bu takku ci suukar soxla bu takku ci meew soxla bu takku ci pomme de terre ci nu mu tudd tàndarma mhm. ak soxla bu takku ci ceeb ba tax na depuis euh, ñetti weer dañu jëloon def li ñuy xam ne ni stock de sécurité pour euh, koor gi euh, ba tax na léegi nit ñi mën nañ dem ci jàmm ak koor gi alhamdulilah yaakaaroon na ne suukar bi dina manqué parce que suukar bi doy na sëkk yaakaaroon na ne tàndarma dina manqué parce que am na yaakaaroon na ne meew aussi dina am maintenant li ñuy xool rek mooy que ni spéculation bañ a am ci prix yi mu ngoog yooyu sax fa laa bëgg a wax ndax eh, ni ñu ko waxee stock bi doy na waaye dafa mel ni eh, commerçant yi ni ko ni ñu koy faral di gisee ah ci ñu commerçant ci commerçant yu bari dañuy stocké mbir eh, dem ba ci mujjantal ga ñu yokk ko ba nga xamante ne askan wi dootuñ ci mën a jot. waaw loolu ñaaree li koy indi benn bi mooy lu ñu stocké stocké stocké bu fekkee ni dafa gaaw a jeex te da bu ñu jëli marchandise bi day commencé am lu ñuy wax day manqué te lu manqué day jafe te lu jafe dañ koy seeral. donc situation boobu andi nañ ci saafara mooy que ni def nañu ay stock de prévention yoo xam ne dañ ko teg à la disposition des commerçants ñu nag mënuñu lu dul yem ci prévoir stock yëpp ñu ñëw ñoom commercant yi ñoom ñoo war a dem ci distributeurs yi grossistes yi def seen commande à temps comme ci élément bi ni mu feeñee ni am na commerçant yoo xam ne jël seen disposition fu ñu daan jënd 100 kilos suukar dañuy dem jëndi 200 kilos parce que prévention wu consommation bi bëri bii nar a ñëw moom mooy indi situation boobu loolu mooy benn élément bi buy andi yokkute prix deuxième élément bi mooy que ni euh, situation marché mondial bi léegi toll na foo xam ne ni prix yi dafa stable maanaam dafa toog ci place boo xam ne ni yaakaaruñu fii ak weer dana yokku tax na nag léegi xel mën na dal ni ko ci ci ci fii ak koor yi dinañ am produit yu doy ci prix yoo xam ne ne prix yu baax la. Mhm. Euh, prix yooyu sax dinañ ci taxaw tuuti parce que tamit il faut ñu wax ko ah prix euh, donte sax ni nga ko waxee fixé nañu ko xëy na ci fenn fi waaye ba léegi tey boo demee marché da nga gis kii dina jaay lii ki ci des jaay la la war nga dem ci marché bi jëndee fi lii dem ci beneen marché ba mu gën faa cher est-ce que tamit wàllu njëg yooyu tamit xalaatu leen ne war ngeen war faa gën a liggéey tamit parce que bu mhm. euh, dañ ne woon dañoo bëgg bay dundee gisoon nañ jamono jee bi xawoon na wàññiku waaye fi mu nii soble bi dafa gën a cher. waaw euh, loolu li koy waral mooy xam nga euh, produit ci biir marché day doon ñaar. dafay doon boo xam ne ni dañ koo def dañ ko béy wala ñu defar ko fii localement wala mu doon loo xam ne ni dañ ko importer en général li ñu daan gis bu njëkk li ñu importer moo doon gën a yomb parce que foofu li ñuy importer day bëri ba nga xam ne ni offre bi mooy gën a bëri ci marché bi euh, soble bi nag particulièrement li koy indi mooy xam nga dañuy nekk ci période boo xam ne ni soble importé bi mu ngi jeex te soble mbay bi mu ngi commencé dugg ci marché bi départ bi maanaam ñëpp dañuy ñëw indandoo seen production waa waalo dañuy indi waa Fuuta indi waa zone des Niayes indi bu ko defee production bi yëpp dafay retrouver wu en même temps ci marché bi ak soble bi nga xam ne ni moo stock bi fi desoon ci soble importé bi mais soble importé bi bu commencé jeex fekk fii soble Sénégal bi commencé nañ ko kii bi stock yi dafay wàññeeku pendant un certain euh, benn période période boobu nag mooy indi nit ñi mu yokk tuuti mais incha allah fi ak ñiy dem ñiy gën a gën a ci koor gi stock yi ñëw mooy ëpp li fi nekkoon te am nañ yaakaar ni day gën a. dana dana yomb bu weesoo njëg yi euh, qualité bi. parce que qualité bi tamit yaakaar naa lu jar bàyyi xol euh, bàyyi xel la jamonoy koor gis nañu ni yenn xeetu produit yi ni muy wàccee ci marché yeeg yooyu euh, produit yoo xamante ne sax ci suuf lañ leen di fekk ñu lal leen di leen jaay foofu tamit euh, ban liggéey ngeen ciy def. waaw effectivement parce que qualité produit yi mooy gën a nekk suñu liggéey ci période koor mhm. parce que li ñu gën a seetlu mooy période koor ci la spéculation ci tromperie sur la qualité yi gën a ëppee dafay bëri façon yu koy defee. Euh, traditionnellement li ñu daan gis mooy nga am produit périmé boo xam ne dañu koy fekk ci boutique foofu retrait bi dafay yomb wala ñu fekk ci grande surface mais léegi lan la ñu gis moo ko ne consommation de rue bi moo ëpp ci période koor ce qui fait que euh, demande bi ñëpp xam nañ ne que foofu la féetee donc ñëpp foofu la ñuy yóbbu seen produit boo ko xoolee ci garage yi ci marché luuma yi hebdomadaire yi ci mbedd yi fu ne dañ lay proposer produit alimentaire li gën a yokk problème qualité bi mooy lan mooy que ni da ngay gis benn produit bu nekk ci emballage boppam maanaam mu nekk ci benn paquet wala mu nekk ci benn boîte ñu def ko datam mais produit boobu gannaaw duñ ko jaayee noonu dañuy jël ay mbuus yu ndaw rocci produit boobu sotti ko defaat ko ci mbuus doo xam date li ngay jënd yow date bi lan la. moo li tax ñuy wax may indi loolu c'est pour que consommateurs yi ñu gën am vigilance bañ a yàkkamti di jënd loo xam ne ni dafay dem ci seen biir te vérifié wu ñu date de euh, yooyu day indi souvent problème ndax date yooyu léeg dafa mel ni dañ koy changer dinañ faral ñu dégg euh, dinañ faral di dégg ñu koy wax léegi bu fekkee loolu am na euh, consommateur boo xamante ni xelam dalul ci yenn produit bu ñuy jaayee ci koñam baa feneen consommateur bi fu mu war a dem ndax war na ko kalaame. waaw war na ko kalaame parce que service régional du commerce dafa am li ñuy wax numéro vert. Mhm. numéro boo xam ne ni c'est pour recevoir toutes les réclamations muy 821 12 18 33 821 12 18 képp ku ci yor sa réclamation ci produit boo xam ne ni gis nga ni lii dafa am d'origine douteuse mais boo ñu woowee ci numéro boobu dinañ ñëw def intervention bi rappelé ma rek numéro bi. 33. 821 12 18. mi ngi noonu muy kon 33 821 12 18 di numéro bi nga xamante ne nii bépp consommateur gis nga lu la jaaxal euh, ci produit boo xamante ne dalul sa xel mën ngaa woote kon ci numéro boobee ngir euh, kalaame kalaame goo xamante ne nag xëy na daan ci euh, jël saafara ñu koy jaajëfal bu baax a baax a Oumar Diallo nekk chef bu service régional bu commerce ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. xibaar yi ñu wéyal ko lii nag charte. Lucie la ñu ko duppee li ko tax a jug nag mooy leeral ab xaatim la boo xamante ne nii def nañu ko muy nag fexe ba euh, maanaam taax yëpp euh, ci euh, ndakaaru ñu daal di koy leeral ay lamp yoo xamante ne dafay leer nañ ci mbedd mi lay doon loole nag liñ ci jublu rek ay ab politique bu ñu teg la ndax gis nañu ne léeg-léeg am na ci ay barab yoo xamante ne dafay faral di lëndëm te loole yëpp nag mën naa jur ñàkk kaaraange lu aju nag ci loole ñu duppee charte Lucie kon Bamako ba ci dugg ak yeneen i dëkk ay satupay ya Ndakaaru Ndiaye leer nañ lamp yëpp di tàkk nekk mbebetu organisation bi di Lucie ñu taxaw nag ngir dëgmal loolu ndaxte bu sottee ci plan environnemental ak économique enjeu yi dinañu bëri loolu Euh, continent africain dafa am xol bu mag bu mu war a joué nag ci fànn gu nekk ba tax nag ñun li ñu bëgg mooy ne dëkkuwaay yi ci biir Afrique nekk ay dëkkuwaay yoo xamante ne population bi dañ si nekk à l'aise ba tax nag faw ñu def li nga xamante ne mooy éclairage urbain ngir dëkkuwaay yi gën a muy benn slogan lumière urbaine dans les villes africaines maanaam lépp leer nañ ci ville africaine yi nekk benn moyen boo xamante ne buñ ko defee qualité de vie population yi dina gën a yéem. Dakar def na liggéey bu am solo ndax yegg nañ léegi ci quarante points lumineux quarante mille points lumineux. dëkk bu leeree moom euh, agression dana wàññeeku waaye dëkk ba aussi dana rafet. te ñun suñ objectif mooy daf Dakar mu nekk dëkk boo xam ne moo gën a rafet ci Afrique de l'Ouest donc loolu ci la waaye itam problème sécurité yi surtout moo gënoon tax lii ñu engagé wu ci. signature charte Lucie bi ñu amal nag dina tax ñu mun relever ay défis yu bëri. def nañu expérience su junni point euh, lumineux yu éclairage solaire. itteewoo daal mooy. fexe ba gox bu mu mën a nekk ci dëkk bi ñu def fa lamp yooyu euh, li ci solo si mooy dafay wàññi suñu facture électricité mais dina fexe aussi ba ndakaaru bokk ci dëkk yi nga xamante ni nii dañuy mén méngoog jamono ci wàllu sàmm en tout cas suñu environnement. ñaar fukki fan ak ñett jàpp ñaar fukki fan ak ñeent ci weexu mai bi nag. ay maire ou villes africaines yu bëri ak ay professionnels yi nga xamante ne ñoo yëngatu ci wàllu lumière dañu weccoo ay xalaat ngir am ay solution yu baax ngir mun éclairer ay ville yu bëri ñu di ko jaajëfal Aïssatou Paye ñu wax ci wàllu politique ca Kaolack waa benn Bokk Yaakaar ñoom euh, ñu ëpp kon ca benn Bokk Yaakaar wax nañu lépp ba mu des Abdou Latif Coulibaly euh, ci bopp kon euh, coalition boobu maanaam bopp tedd de liste moom la ñu bëggul muy Abdou Latif Coulibaly waaye tamit li ñuy sàkku rek ci njiitu réew mi Macky Sall mooy nag mu bañ leen a maanaam imposer ab list loole nag neexu leen benn yoon waa faction benn bu Foundiougne ñoom nag tànn nañu ñeenti candidat ci woteek législative yi ñu dëgmal ku ñu ca jiital nag mooy maire bu Toubacouta Ibrahima Diémé. depuis ndoorteelu ndaje ga la ñu tàmbali di tàccul kii di meeru Toubacouta mu mel ni nag moom la ñu bëgg mu doon tête de liste di naan waxtaan wi dem kon ba lu toll ci ñeenti waxtu ci la ñu daal di def janook taskatu xibaar yi xamle seen ñeenti candidat ci bopp ba ñu teg ci kii di Pape Seydou Dianko. tey dajewaat nañ euh, commission bi def na liggéeyam waxtaan ba déggoo nañ tey pour retenir suñ ñaari candidat mooy Pape Seydou Diankou mooy maire Toubacouta mooy candidat département. Mbaye Diamé mooy maire Foundiougne mooy député maire moom tamit candidat am na jigéen Anta Cissé. ak Yacine Badiane. groupe bi nag benn pàcc la ci benn département bu Foundiougne ñu xam leen ne sax ñoom ñooy benn authentique te duñu nangu président de la république di tànn Abdou Latif Coulibaly mu doon seen tête de liste départementale. no non non loolu Abdou Latif sax du ko nangu parce que bu fekkee président xaritam la te moom ñaari commune la jiite. mu ne li président wax moom lay def waaw mais président day wax ne ñun ñoo jiitu mu topp suñ ko loolu kay amul euh, président conseil département. ak ak ak ñaari au conseil ñu ànd mais kenn ku nga xamante ne ñaari commune nga jiite président di la jox lool loolu warul man nekk. ndaw benn département Foundiougne tamit benn kàddu gi la ñu yëkkati. ñun suñ position tey mooy ànd ak suñ 14 maires yi. ak le président di conseil départemental di coordonné moom nga xam ne mooy coordonnateur départemental de la coalition Benno Bokk Yaakaar ànd ak ñoom si décision bi nga xamante ni jël nañ ko maanaam porter la candidature de Pape Seydou Dianko et de Babacar Diambi. mel ni kon département bu Foundiougne en tout cas majorité bi wane na popam ànd ak kii di pap Pape Seydou jànko pour mu doon seen député ndaxte ne nañ fukk ñeenti maire yi moom la ñu àndal. lu aju sax ah, ci ah, tànn yooyee ci liste électorale ah, yi njiitu réew mi Macky Sall am na ab communiqué boo xamante ni eh, génne nu ko loole nag gannaaw coow lu rëy li nga xamante nii amoon na ci assemblée eh, générale mu soxal waa Benno Bokk Yaakaar ci loole nag njiitu réew mi Macky Sall doon it eh, njiital coalition benn Bokk Yaakaar nee na lépp luy assemblée général mu aju nag ci jiital kon ay candidat ci liste yooyee nanu ko dakkal dakkal ko ba keroog leader yi di amal ab conférence boobee nag moom moo fas yéene sëgg rek ci ay waxtaan yoo xamante ne nii dana daal di fay euh, coow li am euh, jamono ji communiqué bi nag euh, njiitu réew mi Macky sàll moom moo ko xaatim doon it njiital coalition bu Benno Bokk Yaakaar mouvement fekkee ma ci boole ci bopp bi di coordonnatrice di Adja Si moom nag daal dinay gën a taxawaa taxawaat kon ci gunge njiitu réew mi Macky Sall ci liggéeyam daan nag tëral ab convergence bu yees ñu ko duppee convergence autour du président euh, Macky Sall am na nag euh, ñu ko fekk ji démb ca place du souvenir euh, doon ko dooleel moom moomee di Adja Sy gannaaw loolu tamit wax na li nga xamante ni moom mooy mbébétam tamuy nag yegg ca assemblée nationale leeral yi dañ ci ànd ak ay sutupay booloo nag ñëpp ci ginnaaw président Macky Sall mu nekk engagement bu mouvement fekkee ma si boole coordinatrice bi nag di ñaaxaat troupe yi ngir ñu gën taxaw. depuis bi mu yéegee ci pouvoir bi ba léegi ñu ànd ak moom ànd bu dëggu man tey nag heure bii dafa jot ñu taxaw remobiliser les troupes taxaw remobiliser les militants wax leen ne xeex beeg xuloo beeg tojante bopp yi dafa war a arrêter nous dañuy réunir autour d'une convergence bu ñuy tuddee tukam tukam mooy convergence autour de Macky Sall pour un second mandat et une seconde et une seconde législature tey loolu moo xew objectif Agassiz nag lu mu si jublu tamit mooy am ay siège fee ci assemblée nationale. Pourquoi pas c'est un droit nous sommes des compagnons du président Macky Sall et des compagnons très fidèles des compagnons de la première heure ñu njëkk a ak président Macky Sall fekkee ma ci boole ci la bokk te dama ne jigéen ñi am na loo xam ne kenn duñu ko may y a des choses yi nga xam ne duñu la ko may sa sarage dañ koy jël jëli ndax ñooy njëkk a yeewu ñooy mujjee tëdd ñooy yor kër yi ñooy transmettre valeur yi kon ñooñu dañ war a nekk ci instance de décision yi. ba tax nag jigéen mag ak ñi nga xamante ne nekk ci banlieue bi ñoom ñëpp taxaw jàppale Adja li ñu bëgg nag mooy ci élection législative yi jël ndam li ba nag taxaw falaat kii di président Macky Sall. ñu koy jaajëfal bu baax Aïssatou Paye yegg si nañu ci xët yu njëkk yu yéenekaay dañ ci ànd ak borom jërë ngeen jëf. jëf Ali Baba Coumba Naar Macky Sall xamuli caaxaan ubbi leen l'observateur fitna ak coow ak ayew xeexoo gi ñu nimmi xaat ci biir Benno Bokk Yaakaar te mu tukkee ci investiture yi ci wotey député yi moo waral njiit réew mi borom APR doo nit njiital coalition Benno Bokk Yaakaar jël dogal ne nañu dakkal nu mu gën a gaawee investiture yi mu di assemblée d'investiture yi yéen a kaay bi nañu président Macky Sall li mu jublu ci dogal boobee moo di fexe ba yoon wi ñu tegu ngir mën a gañe wote yi dara bañ leen ko yàqal bañ a biir Benno Bokk Yaakaar la Sénégal nañu Macky la table njiit réew mi nee na adada xeexoog wérante kurpañ yi d'investiture yi loolee la bëgg mu dakk ba tax mu sant gaayame ñu suspendar lépp lu xeetoo ki assemblée d'investiture anki dina kay moom it xëy génn kàddu gi mu di Benno Bokk Yaakaar gii bëgg a tas ak fitna tax na Macky Sall dóor ci taabal ji ngir bëgg lépp dakk Macky Sall ñu santaane naa ngir ñu teg ci suuf nu mu gën a gaawe lépp lu di ndaje investiture conférence des leaders mu di kilifay Benno Bokk Yaakaar yi ñu daje ci lu yàggatul dara càmbar biir ak biti nu investiture yi war a doxe Le Quotidien nañu président dëgg na frein bi frein ne lépp lu jëm ci investiture ak coow la ci am ci gaay yi ak moom quotidien nañu ak dal la indi ci yëf yi vox populi moom it bokk ci journal yi xëye dogal bu président bi dàkkal na lépp ngir moytu ak pëccëxoo réeroo ak jaxasoo maanaam anarchie ci investiture yi ab circulaire la def circuler ko ci gaayam yi ba noppi jël pataas bu tàng bi mu di coow li jox ko conférence des leaders ñu war caa nekk di alawte ko ba keroog muy sedd professeur Moussa Diaw di kuy gëstu jëme ci wàllu politique ne ci xët mu njëkku yéenekaay ba jéggi Macky Sall jël àndandoom yi mu di alliéem yi rafetlu nañu ko Babacar Gaye bu Parti démocratique Sénégal ne ci biir journal bi ak dogal bu ñu mën di jël nañu xam ne ñun waa Parti démocratique Sénégal ak Manko Taxawu Sénégal gi ñu bokk du ñu mas a nangu ñuy tuxal wotey législatif yi Famara Sané dib analyste politique ne waa L'Observateur mbir yi mu di investiture yi bu ci Macky Sall demee ak xel boppam mën naa juri conséquence ci bennoo gi am ci bennoo boo ko yaakaar laajtir bi nañu waa bennoo boo ko yaakaar ak ni ñuy waajalee wotey député yi dalul am xel investiture yi pagaay gu mag la jur moo waral président Macky Sall bloqué lépp opposition bi kenn gënuloon a bloqué wu bu ñu sukkandikoo ci journal bii di a jiite liste coalition taxawu la ñu sas ngir ñu waxtaan ak ñaari wàll yi ba législatif yi aw na yoonu boppam ba joxe caution fas yéene dem ci wootey député yi ak listu boppam direct info nañu ginnaaw Benno Bokk Yaakaar ak Osez l'Avenir bu soxna Aïssata Tall Sall Abdoulaye Baldé ak Cheikh Tidiane Gadio ñoom it taxawal nañu seen liste bopp liste Baldé Gadio investiture yu Manko Taxawu Sénégal ci diwaanu Mbàkke Le Témoin di laaj ndax li gën ci ñoom du investir maître Madické Niang Serigne Bara Mbacké Dolly ak Serigne Bassirou Ka kaabu Abdoulaye Wade ak Macky Sall moom la Rewmi Quotidien xëyee gis ne Macky Sall moo ngi ciy pexe ngir jatang Abdoulaye Wade tënk ko neutraliser ko ba du yëngu fenn ci pexe yooyee la Macky Sall nekk moo waral mu gàddaay loo doom jugóor góor ja Karim Wade ka ca des di Sindiély Wade mu dëkke koo jaaba jonge ci média yi nañu dellu ci l'observateur xooli Omar Kane ab immigré la bu dëkk ca Thiamène ga ca Louga am na jabar ak juróom-benn doom démb ay mbiram la tribunal bu Louga xëye woon ba atte ko tëj ko six mois avec sursis la mu def yéenekaay bi nañu moo di dafa mandé ba réer xamul fu muy taxaw dem ca bureau bu meer bu commune ba di Assane duma ko duma yu miti bu nuppi ne dafay taal mairie ba ñu di ko jaajëfal bu baax Mamadou Mohamed Ndiaye mbokk yi nit cant ak ngërëm ñeel na leen rédaction bi dig na leen daje 19h30 ak 20h ci leen jotaayu xibaar ñu leen di ñaanal kenn daluk jàmm di ko sàkku ci yéen.